waaye tam wax na ci li nga xamante ni moo di taxawaayu gouvernement bi moom daal jàpp na ne gouvernement bi ay cuune lañu. ci six mois waaw moom jë jë Bougane moo ko mujjee constaté. ah da nga gouvernement bi fi nekk ay cuune lañ loolu bitti la fanaan askanu Sénégal ñoo xam ne gouvernement bi fi nekk ay cuune lañ parce que loolu la ñu wane bi ñu fi taxawee ba léegi xam nga nit sax di nga ñëw jéem a góorgóorlu ci dara mais gis na Sénégalais yi mën nañ laa yërëm boo nekkee ci opposition mais gis na bu ñu la falee jox la donkaasi ngay war avion bi di dem di ñëw Sonko nekk ci ay privilèges ministre nekk ci privilèges yor oto yu rafet sénégalais dañuy xool yow seeni askan la taxoon ñu fal la kaña nga ciy jóg. comme neex na nga far ne gouvernement bi askan wi ñu ngi kontaan ba tey waaye Sénégal muñ tey teen moo fi nekk ku sëgg say rongoñ wadd liñ defagul yëpp échec total lañ ci amul lenn loo xam ne ci 6 mois yi defagul nañ ko réussir ci. lan moo causé Sénégal problème yi fi am nii yëpp lan moo ko causé dem ba ay entreprise sénégalais nga dem réew moo xam ne yow da nga risqué 100 entreprise sénégalais dem fay. am risque 500000 sénégalais ñàkk seen emploi loolu mooy gouvernement bu bu baax premier trimestre bi bi FMI banque mondiale ñëwee lan la ñu wax dañ ne pays bi mu ngi en normal léegi ñu demaat 3 mois après FMI ñëw na leen ñu ngi ci ay difficultés léegi ñu toog fee di lay naan ay gouvernement président Macky Sall mais est-ce que du wax jooju dama ne xoolal dafa fekk si li ju président Macky Sall li Sonko wax ni dañ fee fekk état en ruine. mooy gouvernement ruine lañ am pas état en ruine. on a une gouvernement ruine le premier ministre est nul le président de la République est nul. les ministres mais ñoom boo fi defoon bu ñu fi doon def cent ans mënuñu xanaa dañuy jàng métier palais de la république laa wax ak primature centre de formation professionnelle la dañ fay jàng du ñu yore réew Sonko da nga gisagul yow ku toog ne dama am sama projet xeexloo ci ay nit bañ dee ci 89 personnes dee ci nga toogaat yow encore dem conseil des ministres ne mercredi décembre lay pare demaat fenn septembre lay pare yow mënoo définir politique de la nation parce que amoo programme amoo projet. ça veut dire que askanu Sénégal la Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye toroxal Diomaye nag du ci dara. du ci dara parce que moom xam nañ ne booy Ousmane Sonko la woon comme patron bi moo toog conseil des ministres ne nañu utal nañ dem séminaire gouvernemental parce que ñoom ñi ñu fal te ñu waxoon na ñoom ENA lañ jàngee ay jàmbaar lañ. moom moo toog conseil des ministres aw ne ñoom amuñu expérience nañ leen yóbbu séminaire gouvernemental sénégalais buy xaar régime fiscalité bi jox la solution da ngay nax sa bopp. li ma jàpp mooy Sénégal ci guuta lañ jëm te dañ xam seen bopp ci guuta lañ jëm ñii leen bëgg dugal ci guuta nag. yëkkati majorité assemblée nationale di ko jox rey seen bopp la Ousmane Sonko moo ne woon nguur kenn du ko jox pouvoir ba pare yëkkati majorité assemblée nationale jox ko ndax ñaari pouvoir yi moo fa kee bu demee bu doon nguur gu baax sax nga jox leen ko waaye nguur gu cuune gi képp ku leen jox majorité assemblée nationale mm. comme dàqu ñu Cheikh Omar Diagne bis bu ne dañuy wate projet de loi buy seetaan mbindum mag ñi bu ko kenn bu ko kenn weddi naa ne nag ñoom seen bopp xam nañ ne dañoo tële mm. léegi moo tax ñu tax pôle judiciaire état bi ñu toog fi naan pôle judiciaire financier ñoo ko fi ñoom ñu ñëw installé ko ku wëluwul sa gouvernement danga fi bàyyi ay pôle judiciaire euh, pôle pôle financier bi ak ñaari cours yi nga xam ne ñoo koy dem moom nommé na ba jeexal waaye ñooñu seetuñu arrêtement illicite déedéet xam nga lan lañu seet bépp ministre boo xam ne yaa ngi nekkoon ci biir pouvoiru APR ñu am alal ju nekk ci trésor public nga détourné ko na la gouvernement bi jàpp la dugal ci biir kaso bi. xam nga lan la ñuy bañ. gouvernement moo lay jàpp wala justice. moo lay jàpp la wax mais xam lan mooy maanaam ñu def ko règlement de compte ñu ngi jëm ci élection.

daal di fal ay magistrat pour que ñu daal di taxawal li nga xamante moo di reddition des comptes. waaw yenn saa ay ree da lay jàpp sax. pôle judiciaire et financier Macky Sall ko fi teg lu tax parce que CREI lay moytu parce que CREI yi xam na ne bu ñu leen ko toppee musiba dal leen loolu mooy wax ji mi ngi mel ni ñim amnistie rek amnistie wu leen boppam la amnistie parce que am na yoo xam ne defloo nañ ko ay nit wala ñu seetaan ay nit def ko te pour ma bañ a wax ne moom la. mais seetaan nañ fi ay nit ñu faat leen faat yoo xam ne kenn euh, enquête ci François Makabu bu ñu taxaw ne euh, dafa doon daj miir bi pendant treize minutes am na vidéo bu ko wane ba nëga ni France daal di xaddeem sëñ Amadou juuf vidéo boobu ba léegi man saa wolof maa ngi koy xool gëwuma say wax mais ba léegi soo ko amee indil ñu ko ku ñu faate ci noonu koo xam ne yaa ko ci say loxo la nekk yaa ko war a saytu garde à vue mooy yaa koy garder nga seetaan ko ba mu faatu noonu même bu xaroo yow la yaa ko rey parce que wala yaa ko jàppale ci rey gi loolu benn la ñaari nit di jébbat si ak euh, Fulbert Samb ci ni ñu faatoo ay Seex Wàdd tiire mu ne club nga yaakaar ne ñooñu bu doon ay nit a leen ko defloo wala ñu def ko ay nit approuvé ko parce que li ñu wax mooy gis nañ fi ay nervi yu yor ay fetal comme ni niñ ko waxee di tiire à bout portant police taxaw def benn Euh, euh, point de presse wala déclaration wax ne ñii dañ leen a kii pour boole leen ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci opposition wala nangam ay vidéo wane ne ñu koy wax dañuy fen parce que numéro 9 boobu ci auto police la wàcce gis nañu ay pick yu jaar saison APR ak feneen ak feneen loolu bu fekkee ne ñooñu dañ leen a reyloo wala ñu rey ñu seetaan leen kooku boo bëggoon boo wàccoon te defoo ne si seen xel dal yow la ñuy rey parce que dañ naan da Euh, jaay. mais loi amnistie boobu est-ce que laalul tamit ñi di euh, gouvernement bu bees bi surtout ñoom Ousmane Sonko. nan leen laale bés bu ko dindee tey jii est-ce que ñoom it duñ ci am ay jafe-jafe ndax loi d'amnistie boobu tax na ñu génnee leen prison. waaw ñu génnee leen prison lu leen yóbboon prison. xam nga tey jàpp ne voilà am amnistie bi bu ñu ko fi jëlee Ousmane Sonko day def Ousmane Sonko day répondre wax na ko. nee nag bu dee bi man la ñu tàmbalee ci man xam nga loolu beneen la. tey bu fekkoon ne tey koo xam ne tey dañ ko ci jàpp muy joomaay tey nga xam ne lépp lu ñu gii ñu giiñ Ousmane ko lenn la dañu ne colda colossardisation de la magistrature waxul ne yéen ay colossard ngeen dafa ne fii ñu jëm à ce rythme maam ku ñu ngi jëm ci colossardisation de la magistrature am na Cheikh Tidiane euh, sëñ bi Ndiaye magistrat Ndiaye ak euh, kële nu mu tëddee Coulibaly gii ñu leen fi ne dañu doon ger loolu du waye di waye di loo d'ailleurs loolu du moo yóbbu joomaay kaso li yóbbu joomaay kaso mooy cent cinquante milliards Sénégal yu mu doon topp ci benn société ba ñu yóbbu ko biñ ko yóbboo kaso kan la woolu dénk ko dossier boobu Guy Marius Sagna ak ak affaire mbuurkaat kon da ngay xam ne loolu mooy li nga xam ne moom moo ko yóbbu woon beneen bi mooy wax na rapport FMI FMI daf fi njëkk a ñëw ci bi jamono nga xam ne mooy bi fi njëkkee ñëw ci première kii bi mu ne waxul ne lépp moo ji Sénégal daf ne objectif yi nga xam ne moom la ñu fixé woon mooy chiffre taux boo xam ne huit virgule pour cent waaye objectif boobu du ngeen ko atteindre mu wax rëq-rëq yi ancien régime bi ñàkk a diversifier yenn yi maanaam lépp def ko fi nga ko war a def ak ni nga xamee noonu lañ koy def mu ne kon sept virgule un ngeen mën a yem maanaam li ngeen atteindre atteindre li ngeen sóobu woon léegi nag bi mu ñëwaatee la ne sept virgule un yooyu léegi six point zéro la loolu dafa nekk conséquence directe ci yorenu ancien régime bi mais pas bi kum neex na ngay politique parce que loolu mooy ma ne maanaam bu ci bokkee it c'est des conséquence liées ak yarin wu bon xam nga luy problème bi non moom laa lay wax état de ruine dafa dëggal li nga xam ne mooy loolu parce que problème bu ñu wax état de ruine tey cinquante quatre mille milliards nga fekk ko foo xam ne amul woon terre train express Rosemar mm. amul PRT amut Ila Touba amut hôpital yi fi Macky Sall tabax léegi nga yor loolu rek ñëw pour defar lan ngay defare kon xam nga ne léegi lan ngay wax mooy est-ce que da ngay ñëw fu huit milliards war a dem nga ne trente deux milliards lu war a jar huit milliards nga ne trente deux milliards la muy arène nationale bi maa ngi koy wax keroog kii ne ma sin waaye fen waaw ñooy fen kay. waaw léegi bu fekkee si waaw may ma may ma tuuti mhm. sëñ bi. Mhm. xam nga man bu dee Sinwaa yi ko wax ñooy fenit it Macky dimbale na leen ci fen yi parce que man du ma ñàkk fayda ñëw nga am lu ma fi def ma inigiré ko pare nga taxaw di ma jaxaseeg askan wi taxaw publiquement ne man maa leen ko may huit milliards la. en tout cas bu fen yi dee am danañ ko man ci fa ma koy xooli mooy ci ministre bi ñu waxoon trente deux milliards la. Mm. ba pare mais du ma ko giiñ ki nga xam ne du doomu réew mi ñëw ne. lii laa ko defaree te weddi woo ko maa ngi ko gis ku taxaw weddi ko ci sama àdduna mu yeew loolu daf ñuy yóbbu ci Ila Touba quatre cent yu teg ak milliard Sénégal goo xam ne am nga latri bi am nga basalte bi mooy xeeru boobu ñuy wax xeeru béton mooy xeer bu ñuul bi mi ngi fii Ngunjaan am calcaire bi liy kew gi nga xam ne mooy defar ciment ba pare gën a seerle nombre par un kilomètre Maroc wala beneen dëkk boo xam ne amul matière yi nga xam ne moom la Sénégal am ñetti cimenterie yi moo fi am bi mujj ñëw daanaka li mu naroon a jaayee saako ciment ñetti téeméer yu tuuti la ciy teg ay taxe tax mu toll noonu état bi ñëw defar lu mel ni benn genre terre presque mille quatre cent milliards laawu fi nga koy defaree même société dem defaral Afrique du Sud. loolu yëpp pour yow moo ñu yóbbee lii. no no dama maa ngi ñëw bi moo la moo non moo la yóbbu parce que conséquences yi laa lay wax. daf ciy impact direct. xam nga nga ñëw war a defar benn terre même société bi la defaral moo defaral Afrique du Sud nga am fer ci sa biir dëkk mën a am possibilité ne société boobu ñëwal parce que mi ngi woon ci jafe-jafe loo ko jox mu jël nga mën ne ko ñëwal délocaliser wu maanaam indi fii defare fi xelli fi sama fer parce que matière baa ngi fi nga xelli ko fi defaral ma ci ay train parce que laaw fu Afrique du Sud defaree ci deux mille cinq cent milliards. Mm-hmm. plus de parce que dañoo utiliser feeram def li ñuy wax compétence transférée yow nga defaral ñu terrain boo xam ne bi nga ko defaree ba pare yow sa bopp yaa ñu waxal ne mënul def bénéfice bénéfice bi mooy rapidité bi nga xam ne moom la ka 23000 sénégalais di jël maanaam aller retour muy mille ñooñu képp loolu la ñu xool mais loolu mënoon na am ba pare muy def ay bénéfice mais defaral ñu loo xam ne nii mi ngi mel ni jigéen ji nekk sa kër maanaam wala koo xam ne nii sañse lay def ak togg ak yooyu yaa loolu soxna la yaa koy dundal day jël dépense day jël nangam nangam euh, mais booy jënd aw fas mhm. wala ngay jënd oto ci kër gi mais waroo jënd oto boo xam ne bu dawee essence bi maanaam bu la dawalee maanaam dix mille francs la la war a verser mais boo li ngay sol ci essence yëpp ak li muy consommer yëpp quinze mille maanaam day daw ba pare nga jëlaat di ko subvention yi loolu mooy conséquence yi nga xam ne moom moo nekk ci kii loolu mooy rapportu FMI bi bu gars yi di wax loo lu mu waxul ku mu ci jëwel nag di politique politicien ak yooyu dama la koy nangul mhm. mais boo paree ma ñëw ci réalité yi nga xam ne c'est réel c'est factuel li ñuy wax comme naan ay sénégalais yi bu ñu joxee ñi majorité comme mook bugaan wala nangam nañ ko jox opposition bi mais bu fekkoon opposition surtout ñoom alal ce qui li leen concerne mooy bu doon opposition